Nous euh, ñëw def ci parce que war mooy bu suñu dëkk soxlawee ñun kenn waruñu ci jiitu en tant que ndaw parce que ci population sénégalaise bi bu may wax nous ndaw ndaw ñëpp nañuy wax duñ ci def xaaj ak seen ndaw yi bokk ci association yi wala ndaw ñi nga ni ci parti politique ak ndaw ñi nga ci parti politique yi opposition wala ñu pouvoir nous ñëpp dañ leen lancer appel ñu and si ak ñun euh, indi li nga xamante ni mooy participation symbolique wu ministère de la jeunesse ministère de la jeunesse ministère jeunesse su Sénégal bi yëpp la opposition ak ñëpp ñoo ci bokk dëgg la conseil national de la jeunesse mooy organe bi nga xamante ni mooy représenté ndaw ñëpp mais daf ci am ñi nga xamante ni dañuy yëngu ci leneen ñoom it ñu boole leen ci tey ànd ak ñoom pour wane ni. Euh, Euh, Sénégal woote na waaye ay ndawam tamit jóg nañ taxaw parce que ñoo ëpp ci population bi leneen li moy dañu ñëw and ak euh, suñu service suñu direction bu ñu wax service civique national bi nga xamanteni ni fofu la ñi nga xamanteni ñom ñoom wax les jeunes volontaires nek ñoñu nak dañuy yëngu ci lu domaine ay civisme euh, citoyenneté ak promotion volontariat tay ñu ñëw fi mettre à la disposition du ministère lu tollok téméré ndaw ak juroom fukk ñu indi leen pour que ñu ànd ak ministère bi xeex li nga xamante ni mooy coronavirus loolu moo tax tey ñu ñëw fii tey ànd ak euh, ndaw ñi waaye combat bi du yem ci lool rek dinañ ko continuer ci euh, base bi mais aussi continuer ko ci réseaux sociaux yi nga xamante ni ndaw ñi commencé nañ ko déjà loolu moo tax ma leen di gën a lancer waat appel di leen ñaax parce que euh, wax nañ ni tëj nañ école yi ak université yi mais plage yi aussi waruñ fa continuer te rassemblement yi te gis nañ ñi ndaw ñi ngi fay continuer di dem loolu ñu ngi leen ciy ñaax ñu arrêté toog xañ suñu bopp mbedd mi tuuti ba nga xamante ne ni xeex nañ euh, li ñuy wax coronavirus ba mu jeex fi ñu soog a mën a delluwaat ci li nga xamante ne mooy suñu ay occupation